kon fofu la wax ci loolu lu jëm ci mbirum Ousmane Sonko sama xarit la sama doomu nday la liñu ko tek jaaru nakarlu nan ko ñaawlu nan ko te ñi ngi xex lepp luñu man pour ñu dindiko ci sayir ak ci batit parce que nak lu upp tour ndax nii ñukoy def defuñu ko kenn ci malgré que jàppuñu ko waaye daanaka li ñu ko def ak jàppa yam parce que boo mënta génn sa kër kenn mun laa seet si su boobaa yaakaar naa ne yaa ku nekk kasu yéen a yem ndax lii firnde bi man mii di wax a yow bi ma jokkoo ak moom ni ko dinaa la yónnee xaru tabaski damaa demande Antoine Diome autorisation pour yóbbu ko mais tontuwuma sax loolu moo lay wan ni la. xañ nañ ko tey li nga xamante ni moom la waroon def muy dem julli ji ak njabootam depuis bi nga xamante ni def nañ ko léebale ëpp na daal ki weer ak ay fan mënut a dem si Ziguinchor pour liggéey si meeram kooku ko ñawlawul ku ko naqaluwul doo ak lu ma wuute wuute si yenn kàddu yi ci ay communication ak lu ma wuute wuute moom ci naqar bi ma am yëpp te gisuma ko sama côté waaye man fa ma nekkoon laa nekk muy askan wee ma ñor te lu mu koy def si askan la bokk moom te jàpp naa ne bokk na si moom ñi ma war a jiite ëllëg nga xam ne man maa war a nekk seen président kon yaakaar naa ne loolu dinaa ko wax parce que si askan la bokk kon maa ngi ñaan état senegal mu jël ay responsabilité comme moom nee na état bi nee na ci kaddu ministre de la justice Ousmane am na condamnation 200 ferme waaye nee na am na ñu bari ñu am ay condamnation ferme yoo xam ne kenn jàpp leen kon mooy wane Ousmane Sonko kenn du ko jàpp. kenn du ko jàpp parce que am na ñeneen ñoo xamante ne am nañ condamnation ferme di dox ci biir dëkk bi demuñu kaso te dafay am jurisprudence boo xam day am am nañu CREI yi condamné woon ferme la leen condamné ñu ngi dox seen soxla kenn kenn jàpp leen te ministre de la justice démb ci commission bi leeral na ko nee na bu fekkente ni maanaam justice pare na procureur la république mooy apprécier ba xam appréciation bi ma gis nag bu procureur de la république ak état bi mooy xam na ni Ousmane Sonko. bu ñu ko jàppee lenn man naa moo tax kenn du ko jàpp maa ngi dala xelu askan yépp ni leen Ousmane Sonko kenn du ko jàpp waaye ñii ñu koy def aussi tegul si yoon parce que nag programme Macky Sall la mu doon wax rek lay lay continuer mooy man de dinaa dem waaye dinaa ko yóbbaale kon yóbbaale googu moom la bëgg a def waaye ñu ñëpp nañu taxaw jom ak population bi lànk loolu parce que nag ñun kenn duñu tànnal kan mu ñu jiite ëllëg lu du sénégalais yi te sénégalais yi ku ne xam na ni Ousmane Sonko dugg na ci seen xol te ndaw la am na procès procès boobu mu yore ñi ko si bëgg te topp ko si duñu seetaan ñoom ak ñun ñi nga xamante ni dañuy xeex pour dëgg ak démocratie ñuy baare procès boobu noonu. moo tax man en tant que candidat Sope ak Doomu Daara dinaa def tout tout ba ñu dindi li nga xam mooy boobu mu def ay soxlaam te Ousta dana nek candidat 2024 bu nexe yalla mom waye bu nek candidat maa koy gagné parce que man la nit ñi gëna bëgg. ñu jëm ci li nga xamanteni mo jëm ci sama mbiru bop ak sama programme comme niko Demba wax dama tëgg ben programme bo xamni jëmi nit la nit nit nak moy rew nit juroomi cër la am motax ma ci sama programme 155 la. benn mandat de cinq ans cinq programmes cinq programmes yi nag mu lay jëm mooy dama jël bopp am nu mu ko tuddee jël ñaar loxo yi loxo bu ne ma am nu mu ko tuddee jël ñaar tànk yi tànk bu ne ma am nu mu ko tuddee ndax bopp bi ci la xam-xam nekk ci laa tëgg lépp loo xamante ni moo jëm ci réforme universitaire xam-xam mbirum yooyu yëpp ci foofu laa ko dugal leen si nag bu ma ko waxee damay bañ gaa yi sàcc ko mais. ma jël benn loxo nijoor bi am na mu ko tuddee jël benn loxo caa am na mu ko tuddee jël ñaari tànk suuf yi am na mu ko tuddee mas ngeen gis ni réew bu dox nit a koy doxal xam nga nit mooy doxal réew te pour nga defar réew da ngay defar nit loolu moo tax programme bi nit la nit kooku nag ñu ko wax insha allah décortiquer ko invité ñëpp ci benn maanaam panel boo xam ñëpp koy fekk boroom xam-xam yi fan yi di ñëw bala ñoo def suñu plénière yi et eh, suñu suñu suñu congrès bi incha allah bi nga xam ñu ngi koy waaj ci mois de août bi mais bii yoon dañ ko bëgg defee Mbàkke parce que damaa jàpp ni Mbàkke lu tax ñu bëgg ko faa defee comme que man doomu daar la te bi ñuy samp mouvement bi Dakar ko sampe woon kon waa Mbàkke ak waa Touba yépp dañoo réclamé waat pour ñu indi la ñu def foofu congrès bi incha allah dañu ko def ci mois de août bi dan bu ñu jàppee date bi ñëpp xam ko ñu xam ne congrès émissaire bi ñi nga xam ne mooy waa mouvement bi ak ay parti politique yi ñu àndal ak ay société civile ak ño xamanteni manam maanaam yëg yeneen ni mouvement mu toll ci 45 ñom ñep adhère nañ suñu procès bi tuddu une sun grande coalition pour def mi nga xamanteni moy euh investiture pour candidat Cheikh Abdou Bara Doli 2024. kon lolu moy li nga xamanteni mom la do wax li stop nak moy di ñaawlu bu baax taxaway bi état bi am jëme ko ci baykat yi ndax nawet bi tàmbali na baykat yi amuñu jiw fournisseur yi fayu ñu len amuñu engrais ba pare ñu ko ñu waxal yeen problème lolu yaakaar naa ni ñu ñëpp tay war nañu xamni pour réew mi dem fay am manam développement agricole bo xamanteni mom lañuy wara proposer mais tay ji kenn amatu yaakaar ci réew mi motax ka situation bi toll fi toll kon euh en tout cas wax nañ ci liñ bi dañ ko continuer di alerter ñëpp suba lañuy ñuy li xam moy procès bi modification code pénal bi suba lañ koy def modification code service article 29 bi suba lañ koy def inshallah allah à 10 h assemblée danañ si wax lañ si war a def wax danañ si def ay amendement aussi li nga xam moo jëm si code électoral bi nee nañu duñu ko mën a defandoo parce que il faut que ñu wote li nga xam moo jëm ci mbirum constitution bi ba am ñeenti fan wala juróomi fan ba président de la république promulgué par ñu doog a indiwaat li nga xam mooy beneen loi bi jëm ci modification code électoral article 28.9 pour que nga xamante ni Karim Wade ak Khalifa ba mën a bokk ci élection yi loolu tamit bu ñu koy def dañ si taxaw taxawaay ba am solo boo xam article 57 bi nga xamante ni Aly Ngouille Ndiaye moo ko fi indi woon dugal ko ci léegi pour nga nekk candidat da ngay nekk électeur su boobaa dañ ko def amendement ngir Ousmane Sonko mën a candidat pour mi 2024 incha allah loolu mooy li nga xam moom ñor ñor loolu lañ bëgg parce que nag waruñoo àgg foo xamante ne Macky sàll mooy simple kenn naan kii mooy bokk kenn mooy bokk na ñëpp bokk laaju baatu réew mi ku ju ëllëg ku réew mi jox bopp ñu ànd see te man jàpp naa ne Macky sàll nii mu def ba njuuy ñi nga xam ñoom la àndal ci bëgg-bëggu ñu àndaloon dañ leen njuuy ci affaire Ousmane Sonko parce que man xam naa lu wér ni Macky Sall du imposé Ousmane Sonko pour mu nekk candidat loolu nag bu ma ko waxee na ma ko xamee woon ci moom du def troisième mandat noonu laa xamee loolu waaye mënugula wax dara ndax fi ñu toll ni Ousmane amul benn dossier boo xamante ni tey budul dossier déformation bi ñu koy tuumaat ci Mame Mbaye Niang boobu sotteegul te loolu rek waru ko mën a tax mu nekkaat ndax candidat dossier benn bi ñu ko tuumaat ci 200 yi nee naa leen du dugg kaso dossier nag boo xam ne duggul kaso tëjuñu la condamnation la boo xamante ni teguwul ci yoon yaakaar naa ne su boobaa kenn mun laa imposé ba nga nekkaan candidat loolu nag mi si loxo population bi askan wi nga xamante ni ñoom ñoo moom seen réew daal bu ñu nangoo Macky Sall tànnal leen su boobaa man dinaa gàddaay Sénégal dem wut fu ma dëkk jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah non ah? c'est bon